waaw sant rek sant rek. non daf leen daaw nag seen liggéey nag nekk la li ngeen di wax nag nag yow déglu leen. ma jàkkaarloo woon section de recherche moom laa jàkkaarloo tey ma bëgg ma xamal sénégalais na leen jàkkaarloo ma ak aji samba laa jàkkaarloo abi jaay laa jàkkaarloo wala layanzi ku ma du Adji Sarr mais dinaa ko muñ na te dinaa ko muñ muñ bu rafet lépp loo xam ne nii tamit gis nañ ko fi dañ koy dénk yàlla suñu borom te dëgg moo nekk loo xam ne si alam la ko yàlla di wone fii ba yomal fi am kon nag ñu suñu tànk dee kese mooy tax ñu teg tànk deewuñ fi ñu teg suñu tànk lañ koy teg duñ ko mës a tegg ba ko yomal tiitu ma rafuma aliyeeruma te yow yëpp benn yoon parce que fii dara nekk fi lu dul yàlla dara amul fi lu dul yàlla te seen nga pouvoir fii la yem si àdduna tey nag jàkkaarloo ñu nag yow ma senkaatuma de ñu nag yow ma ko lool te dama koy dénk yàlla suñu borom bi lépp dénk naa ko yàlla si kàttanu yàlla suñu borom. merci beaucoup kon maa ngi remercier nag non jàkkaarloo maa ko bu loolu bi jeex na. merci non non bu loolu moom rek dossier bi jeex na. yàlla la yàlla jàppale rek. aji waaw yàlla jàkkaarloo Ndeye Khady Ndeye Khady Ndeye Khady Ndeye Khady bul tiit bu ragal yàlla rek a fi nekk. waaw maa ngi ñun ñii a la war a remercier parce que yow yaa ngi sonn nga sonn la dégg nga. ndey ñoo la war a remercier xadi xadi ñun ñoo la war a remercier ñun ñoo la war a remercier yow amal jàmm rek barki alquranu karim yow amal jàmm yaay di góor booy sabaran sabaran waay oh ngeen tey doomu jàmbur bi ba heure bi heure bi dafa ñaaw quoi vraiment on est fier de toi yow soxna si on est fier de toi billaay wallaay amuñu sa fay amuñu sa fay yaa gore yaa ñàkk yi ñaal sa jëkkër tamit kenn du moom à toi seul tu as représenté billaay wallaay lan mooy d'abord sa première réaction après nga gën amul benn macha allah gis naa taxawaay bi franchement